libération dig si géej yi nga xam ne moo am si kër ndem si yàlla Cheikh Béthio Thioune ci diwaanu mbaaw plage ginnaaw wër yi nga xam te ni bii Serigne Saliou Thioune mu ngi koy wër kër Cheikh Béthio yi ba mu yegsee si mbaaw plage dafa fekk waa kër soxna Aïda Diallo ñoom ñooñee mel ni rafetluwuñ tànki nemmeeku yi nga xam ne Serigne Saliou Thioune amal na ko si kër gi bi ñu fi indee jiixi ñu génn leen kër gi ginnaaw ba sëriñ Saliou Thioune teg benn ndaw yoo xam ne moom la wóolu si bunt ba ne leen ñii taxawu leen buñ duggati si kër gi ñoom ginnaaw ba ñu del si kër gi ne dañuy jël si benn kàng boo xam ne Cheikh Béthio moo ko fa bàyyi seen diggante coow am sax ba ndaw loolee ñoom ñu gaañ ko gaañ yu ba mbir mi dem na si kanamu gendarmerie bu mbaaw juróom benn yi jege ñaale yi soxna Aïda Diallo ñoom ñëpp ñu ngi si kanamu yoon jamono ji gendarmerie bu mbaaw teg na leen loxo